sirwen nañ das ñaar ñetteel ñu si darsu ñeenteel mu ne al jàngoon nañ fi'l mudaari maadi yoo xam ne fi'l ñetti xaaj la fi'l maadi ak fi'l mudaari ak fi'l amr leeral nañ leen fi'l maadi li àtteem leeral nañ tey ñu si fi'l mudaari al fi'l mudaari fi'l mudaari al amsiyatu ma misaal mu ne misaal moom la la andil ni mu ne axsil dinaa raxas yaday yaday sama loxo albasu dinaa sol siyaabi sama yére na laam ah, na laam di foo bi kurat si bal bi namsi di leen dox fil xuquuli si biir tool bi la arsilu mu ne soo i'raab arsilu moom fi'lu mudaari alaamatu raf'ihi at-damma zaahira ala aaxiri dinaa raxas wala kon jamono bu teew la soo neex ne arsilu dinaa raxas wala wala jamono bu passé moom soo neexee ne jamono bu teew wala jamono wala jamono bi ñëw mu ne albasu dinaa sol siyaabi sama yére arsilu moom kon albasu fi'lu mudaari la marfuun وعلامة ومفهوم علامة رفع الدم الدائن على آخره waaye mu ne siyaab yi nii yedda yi nii si kanam dina leen ko i'raab i'raabal leen leen fi'l mudaari kese na nal'abu dinañ fo bil kurati si bal bi nal'abu fi'l mudaari wala marfuun wa alaamatu raf'ihi ad-damma daahirun ala aaxiri mu ne namshi moom fi'l mudaari wala marfuun wa alaamatu raf'ihi ad-damma muqaddarun ala axiri mu ne nam si cosaan bu mooy nam si yu la waaye arab day bañ a diisal baat bi moo tax mu ne nam si waaye waaye tamit fi'l mudaari wala marfuun wa alaamatu raf'ihi ad-damma muqaddarun ala axiri mooy lu nattale mujj bi danga kaa nattale ne yambahu dina baw alkalbu xaj bi yantabihu dina yeewu alxaarisu gardien bi takul dina lekk albidu xale bu jigéen bi tasbalu dina lax alwaddata fulul ne yambahu fi'l mudari marfu'un alamatu rafi damma zahir ala axiri yantabihu mutim fi'l mudari marfu'un alamatu rafi damma damma zahir ala axiri كل لك قلب بقلب جيجن في فعل مضارع مفعول علامة رفعه الدم زائد على آخره تسبب الفعل المضارع مفعول علامة رفعه الدم زائد على آخره من سوري كي زائد على آخره ما له خمس مدبر دفافين ما دفع لأنه ينبه ونمشي مقدم وهي مدبر كان نتله من أغسلوا أن léegi su ñu la joxoon saafu pour na saafu bari soo soo boo si jël benn def ko si na jël albert mu ne ana ana albasu ana albasu nahnu nalbasu anta talbasu anti talbasina antuma talbasaani mooy mooy ñoom ñaar ñu góor ñi antuma ñoom ñaa ñu jigéen tal mu ne antum talbasuna mooy ñoom mboolem ñu góor ñi antum na mboolem ñu jigéen ñi talbas talbas mu ne léegi ñu fi nekkul tamit wa moo ñoo xamante ni nekku fi mu ne huwa huwa yalbasu hiya hiya talbas hiya talbasu huma yalbas yalbasaani mooy ñoom ñaar ñu góor ñi ñu fi nekkul huma ñu ñaar ñu jigéen ñu fi nekkul mu ne tal talbasaani hum mooy mboolem ñu góor ñi fi nekkul a ah, yalbasuuna hum hunna na mboolem jigéen fi nekkut yalbas na kon lii mooy dam yi su soo si jëlaat soo neexee tey mën a yeneen wala ñu jox la yeneen yoo xamante ni bokkul ni wala ñu jox la yeneen yoo xamante ni suñ koy ni nii rek noonu la ko arabe suñ la joxee tamit yeneen fi'l mudaari yoo xamante ni comme nii la boobaa soo koy sarf ni ñu koy sarfee ñu sarfee kon comme wax neen la may ana albasu ana albasu nahnu nal nahnu nalbasu anta talbasu nahnu ah, anti talbasi anti anti talbasina antuma talbasani antuma talbasani antum talbasuna antunna talbasna huwa moom boo ñu fi nekkut huwa huwa yalbasu huwa yalbasu hiya talbasu huma యల్ ఉమా యల్పసాని ఉమా mooy um mboolem um mooy góor ñu fi nekkul um yal ah, um yalbasuuna mooy um unna mboolem jigéen ñi fi nekkul mooy talba talbas mboolem góor ñu fi nekk mboolem jigéen ñi fi nekkul mooy yalbas na kon suñ la joxaatee yeneen baat yoo ñi ne kay ah, suñ la joxaatee interview tamit noonu na kay ah, sarfe suñ la joxaatee yeneen baat yoo xam ne ah, i'raab la tamit noonu na kay i'raabe mu ne albaasu li may gëstu mu ne da laa gëstu mu ne alkalimaat ula baat mu njëkk fi am sa saabiq si misaal yi jiit kullaha ñu ñëpp afaalun ay fi'lu leen mu ne li anna kulli mina képp képp nekk ñoom yeddul lee tattalan la amalin si am ak jëf fi zaman xaalis jamono bu ñu ko jegoo mu ne baat yu njëkk yi mooy si misaalu jiit yi ñëpp ay fi'lu leen mooy axsul albasu yëpp ay fi'lu leen mu ne képp ku nekk day tetela si amoo si jamono jamono bu ñu ko jegoo mooy daa tot barta buñ setante raase jamono bi jamono alxaas bu ñu jegoo fi kulli mina si képp ku nekk wajatu du mu fekk waaw imma benn xaadiran bu teew o imma benn mustaqbilan mooy jamono bi ñëw mooy buy su la neexee tey mu nekk fii lay mooy jamono boo xamante jamono bu teew wala jamono boo xamante ni mooy jamono buy buy ñëw ba ba la si neex mën na ko firi mu ne fal fenlu fenlu na arsilu mooy ah, fa fenlu fenlu arsilu fenlu bi firi arsilu dina raxas mu ne dul lee te tan la arsilu xusti si ama si ama ah, sang sangu fi zaman ala xusul xasti si ah, ama sangu fi zaman si jamono al fi zaman ala xusula xasli si jamono si amak raxas ah, ah, kon xuslu mooy firi sangu waaye xaslu mooy firi raxas mu ne fii jamono si jamono lay fi nekk si jamono mooy jamono xaadir bu teew ak mustaqbal wala jamono bi ñëw kon fin kii albas mooy aksilu dina raxas boobu day firi si jamono bu teew wala jamono bii ñëw mu wal fenlu fenlu wal fenlu albasu mooy dina sol ya dul dina teetala xusuli على si لبس ama sol fii zaman si jamono alxaadi bu bu mustaqbal mu ne mooy albasu di firi dina sol fi'l boo mooy bi firi albasu sol de si ama sol si jamono bu teew wala jamono bi ñëw kon jàppal ne fi'l yi yëpp mën naa mën na mën na nekk si jamono bu teew wala jamono bi ñëw bu la si neex mën na si firee mu ne di kul fi'lin bépp fi'l min hadi ndaw ci biir xeet fi'l fi'l mudaari' mudaari' fi'l mudaari' mu ne yëpp ma xeet yi yëpp ñu wax yi yëpp yëpp da leen tuddee fi'l mudaari' tamit suñ la andaatee yeneen yoo xamante ni comme ni la mel wala comme ah, azhabu dinaa dem waaye yooyu ne lépp waa fi'l mudaari' la leen tuddee. wa idaa nazarta boo xoolee ilaa xarfin jëm ilaa xarf awal jëm saa fi njëkk bi fi kulli fi'lin si bépp def mu ne min haazihil af'aali si biir fi'l mu ne wa asbaahihaa ak mu ne asbaahihaa ak ndoro mu ne wajadtu dina fekk hamzatun hamza wa nuun aw aw aw wa nuun nuun aw yaa wala yaa aw taa wala taa wa tusammaa den tudde haazihil ahruf yi xaraf arbaatun arbaatun ñeent ahruf mudaari xaraf mudaari kon naara mudaare fi'l mudaare soo fekk dina am dina am dina am hamza wala waawun wala nuunun wala yaawun wala taawun ñeenti xaraf yi lay lay la fi'l mudaare am kam arsilu kon am na alifun yamba am na eh, yaawun nalabu am na nuunun eh, eh, tasbalu tamit am na taawun boobu noonu kon moom xarfu anay anaytu anaytu lañ koy tuddee xarfu anaytu mooy dañ mu daal moo tax borom xam-xam yi ah, ah, ko si si xarfu anaytu xarfu ah, mu daal yi lañ ko si anaytu kon xarfu fin mu daal yi boo soo déggee soo a bu si njëkk mooy axil dina raxas kon am na a a boobaa misaal kam axil boobaa kon axilu am na alifun ak ya nuunun na namsi mooy dinañ dox kon am na benn wi nii namsi fi mu daanoo kon ak ya kon si fi mu daanoo la bokk kon yambahu <coughs> si <coughs> xarfu fi mu daanoo si la bokk ak taa un tas boobu tamit fi mu daanoo la وبعضهم في حرف فعل مضارع حرف فعل مضارع سبب كنت تتبع الفعل المضارع القاعدة li mooy tënk tënk bi mooy tënk mooy nga xamante dafa wax dafa wax dars bi ko li muy wax yëpp tënk baa ni mu tënkal ko ni na al fi'l mudari waaye li tamit na koy mokkal mu ne al fi'l mudari fi'l mudari wa moom <coughs> kulli fi'l mooy bépp jëf yadullu day tegtal ala xusuli amalin si am ak jëf fi zamanin si jamono al xaadir bu teew aw mustaqbal wala jamono bu ñëw mu ne fi'l mudari bépp fi'l boo xam ne day tëtëloo si am ak jëf boo xam jëf bu jëf bu tee wala jamono wala ah, jamono wala jamono mooy jamono jëf bu tee wala jamono boo xamante dafay ñëw kon fi'l mudaari mën na ko firee mooy jamono bi ñëw wala jëf boo xamante ni jëf bu teewlu mais wala bu doon ñàkk ay yàqu mu nekk mubtada daji commencé bi harfin si harf min harf mudaari si harf mudaari mudaari wa hiya moom al hamzat mooy hamza wa nuun ak nuun wal yaa yaa wa taa wa taa mooy liñ la waxoon kon fi'l mudaari moom boo diis te day am ci xaraf mudaari yi mooy ah, hamza nuun wala yaa wala ta kon fi'l mudaari boo gis amul hamza amul nuun amul yaa wala ta loolu kenn ko tuddee fi'l mudaari kon fi'l mudaari seen xaraf mooy ni mooy seen xaraf yi ñoo nekk kon <coughs> bu fi'l mudaari boo gis rek ba soo xoolee dina gis mu am hamza wala nuun wala yaa kon jàppal na fi'l mudaari su la laajee fi'l mudaari si wàllu naxu sobre a fi'l مقرئ وبعد من فعل لما فعل مضارع وبعده كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من من من أحرف المضارعات وهي همزة والنون ak yaa wa taa waa loolu soo ko waxee boobaa nit ki dina xam ne kii moom dégg na darsu bi boo koy laaj xam na loo ko laaj kon dañuy fexe kon na mokkal tënk darsu bi kon loolu tey li mooy sintasu mooy fi'l mudari kon tey li mooy sintasu tey bi li si jub si yàlla li si dëng si gàtt xam-xam la in uridu illa al-islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh